xam-xam kenn ëppuma ci wilaaye kenn ëppuma ci mbooloo waaw wala fax wala fax loo xam ni boo koy yoree da ngay nëbbu ba dof ci li ma waxoon ci yeneen bi rek yooyu yëpp di yëngu te buy dox ci suuf nga defe ne moom ñëpp a yem waaw moo tax xam sa bopp rek moo am solo loolu moo tax sama rakk bopp bu baax bile bi ñuy génne léegi di ñëw mu ni ma kataba allahu la aglibanna ana wa mu ni yàlla boole ñu ca rek moo am solo ma defa kon nag mën nañu bañ guddal sax te jaay amu fi waaye itam dafa am lu garaw ngeen di ma baal yenn kàddu yi nga am na yu nga xam ni pour mu leer dafay tax nit ñi mën a xam yenn jëfandiku yi lan moo nekk ci suuf sëriñ Mbay Si Mansour bi dafa dem dëkk bu nga wax Palmarin fii ci Mbuur am fa jibarkat bu fa nekk mu jël xaalis bu bare bu bare jox ko ni ko xam nga lu ma bëgg mu ni ko am ah, mu ni ko benn doomu sëriñ Babacar bu taxawati ci kaw suuf benn sëtu sëriñ Babacar si bu mu taxawati ci kaw suuf ci moment boobu ci la Pape Malick tam ñu pare nag ni ci man lañu jëm si ndax lu ne xam cosaan bi dafay baax mais xam nga lu ci am solo mbokk a ngi toog fii bu ñuy wax abu Bakr Dia di doomu góor gi usmaan Dia moo daan ànd ak Chérif Tahir moo gis maam Habib Sy benn rakku maam El Hadji Abdou Aziz Sy maam Habib wax ko moom Abou Bakr ni ko waxal Moustapha ni ko bu mu tiit bu mu ragal ni ko ndax mag ñi kenn toogatul ndax yàlla ak moom mu ni ko te boo demee nga wax ko ni ko dese na nangami at ci dundam ma defe ni kan nag ku yàkkamti demal ca bàmmeel ya xaar du dëgg waxin la rek c'est l'éternelle répétition de l'histoire inna nahnu natarabbasu bihi raybal manuun góor gee ko nettali ñi daan dem ba duñu ubbi seen kantin di jaay ñu ne leen lu tax ñu ni fekk yonent bi du dund rek dootuñu tal dara na fi jóge rek loolu du fi jóg bu ko defee kon nag ndeysaan fatan aasha mahmudan wa mata muhammadan fa aatayta lil aishi qadran wa lil mawti miqdaaran azima waaw ndeysaan waaw ay ca bismillah ndeysaan mhm. waaw waaw waaw waaw